wajaatu kulliya bihamdin wa sukur ila waliyil muminina wa shakur wajaatu kulliya bihamdin wa sukur ila waliyil muminina wa shakur wajaatu kulliya bihamdin wa sukur ila waliyil muminina wa shakur كن يا ولي يا قدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا من أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا من أذبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا دمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان أفزتنا به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسل يا من حمدا ودي صلاة والسلام أبدا لهم كما أمضي زمن ñu xool li ko yàlla fay ca guddeem yooyee ànd ko waa guddi yu Ndakaaru nag ak mbokki taalibe yëpp nit di sargal Serigne Touba di ko di ko di ko di ko di taaral bisam bi ni mu ni yàlla taarale eh, ab liggéeyam ñu taalibe yi àndandoo di ko ni taarale kenn xiiful kenn marul kenn yëgul ab coono te ñëpp a ngi ne koo ci gis daal sañse kon jërëjëfe Serigne Touba yëg-yëg gi ñu am mooy di dund soxna jaar rek Mariama sa Jaaratullaahi jàmbaaru lislaam bi ba maam mu Ka borom way waykatub Serigne Touba bu mag ba moo ko ni dafa rafet rafet di ko man boppam di togg lu doy du sàkk xejj ak seen moom jaaratulaahi siisut añaanut te daawut boot di doog a defal teggi nii moo nu ko won moom jaaratulaahi ak mokk ak nooy wax par ndànk moo nu ko won daawut werante xuloo moom jaaratulaahi soxna Mariama bu sa jaaratulaahi tukki bi li muy métti métti métti lu mel ni ñaari guddi yi amut waaye soxna jaaraa ko fekk ni ko ahmadou mu ne ko mbàkke mu ne ko boo boobu boo onkee lislaam bëpp te dootul jóg yaa yaakaar yi jaam ñi kon soxna mariama bu sala jigéen ñi taxawal fas yéenee tatagal cheikh cheikh mouhamadou muntaqa mbàkke mi ko fi toogal ak mboolem njabootu sëriñ tuubaa gi ala nabi wal ali wa sahbil kiram salaatu jinaar ci azim samadi على النبي وآله والحمدي رد مكائد العدا إلى العدا يا من هباني بمخجل العدا أوزل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوزل بسارات لسف مدمنة ndax kaay jël jóg boobee fa lañ ko yóbbu buur ko tooñee yóbbu ko jaarale ko fee juróom-ñaari ak juróom-ñaari weer juróom-ñaari saa sëñ bamba daj lu kon tey bu ndee ba tey ji àdduna daj wër kapp daj daj ko sëñ bamba am fu ne ñu dem ba tey ji sëriñ Tuubaa nekk fu ne tasaaroo si àdduna ngay dégg sëñ bamba muy riir fan doxee tey di ñëw romb nañ fa ay terrain yoo xam ne seera faa la ko jënd Seex Ibra Faal ko jënd ti di foncé ko nee na fu bamba wàcc rek na fa am kër foofee ñu romb foofee ñu romb ca Kaajal Diop ba dafa jógee romb nañu port ba ca muul wit ro foofu ñu romb romb nañ fa titre foncier yëpp lañ fa romb titre foncier yëpp maam Cheikh ko moom titre foncier ba fa romb kër Sango Gent rek Cheikh Ibrahima ko moom ba ca Sandaga garab gam daan yendu mooy Sandaga rii boobu bépp Cheikh ko jënd titre foncier ko barak boobee mel ni mar bu ci kër ma yees jaan ca laminaas Cheikh Ibra ko defar foofee la teeroo sëñ Bamba sëñ Bamba doo ko bindi wala yeddu ko ila dari salaam fi mu ne ñun dañoo bik fi ne jumaa ji mooy jumaa sëñ Tuubaa Touba amu fa jumaa de Kaaba la fa am ba naan yel baax yi bi na jumaa yi dañuy tas ku ëf bopp bu ëfee jumaa yi seey waaye Kaaba du seey ka sëñ jumaa ji mu digoon nag Bamba. jumaay njaareem am ak sowu jant ak jéem jolof ak daaru salaam ay Touba ak Kaaba fa am kon sëñ Touba ñëw fi ñëw fi di moromante du ma sa de su ko wax da ko jëf nu gis ko lam yax uni sa jul wala waxi mu umu neewoon na sama bi set it la leer na ndar la ñu jógee ba tey ñoo ngi it bis bi set it la ndar la ñu jógee ba tey mbir gi noppalu wuñu jug noppalul ba tey ñoo ngi it jóge nañ ci ñaar rakk ndar yi jëm ci ñaar rakk yi géej gi bàyyi koo ci dellu si waat ci Masaalikul fi fii yoonu àjjana yi daje muy Masaalikul Jinaan buñ fi bàyyi koo tasooroo waat demaat ci safar gi di suñu safar toppaat safar gi ba ba garaa it nag muy ma ci kon sëñ Tuubaa maa mën maa mën di wax ko sëñ Tuubaa moo gën moo mën moo raw moo sub du moroom ko yàlla bind waaw ah, doganteeg demam demam gii ci géej gi wolof kon billaahi yëpp dañ koy laal Cheikh Rafal nee am junni am junni xam junni am junne ko gën a wóor donc bu gaa yi jàng dañuy xëyal Bamba loo ko sam ko waaye kuy liggéey sëñ Bamba loo bëgg am ko loolu waxi Cheikh Rafal adduna boo fi bëggee am ndam dama liggéey sëñ Bamba sëñ Bamba rek kay may dara kenn yoru dara sëñ Tuubaa rek kay may dara donc boo fi bëggee am dara da ngay liggéey sëñ Bamba te sëñ Tuubaa boo ko liggéeyee faaw mu fay la est ce xam nga kii ñu mbakk yu fay mi ñu dox jumaa ji maa xam nga ne maam Cheikh Ibrahima Faye mooy baayam maam Cheikh Ibrahima Faye mooy baayam Cheikh Ibra Fall lañ tudde baayam waajuram ñoo toppoon Cheikh Ibra Fall ñu tudde baayam Cheikh Ibra Fall waaye xoolal Cheikh Ibra Fall li mu ko fay tey ñu tuddee ko Serigne Touba mbakki yu fay biir kayit sëñ Bamba am na mbakki yu mbakki yu mooma nag lañ roofaat ci biir mu daal ñoo ñu jox ko jumaa ji mu liggéey ko waaye jumaa ji kuñ ci dimbali Serigne Saliou Mbacke borom jàpp ndal ndoka borom xel kom jaaga kan waaw kan moo doon dimbali ban am terrain bi Serigne Saliou Mbacké kan moo tàmbali bi bagaas yi Serigne Saliou Mbacké lu mu tàmbali day àgg ndax mooy sali ala salihu waxul muslihu asadiqu sidqu salaat Serigne Saliou lu mu yegg waaw ñu sant yàlla wér jabatu sëñ Tuubaa jaar fi alaaji baara ñëw ne fii la daal alaaji baara ñëw suuf si fii la te fii la googu ay mbir la fii ay kàmb la woon alaaji baara ñëw ne fii la kooku nga xam ne doomi sëñ Tuubaa doo dara ku dem làq sa ngërëm ñëw ne fii la ñu ñëw sëñ Sidi Moxtaar jàmbaar ji ñëw def ci ay milliards sëñ Sidi Moxtaar joxe addi sëriñ Tuubaa woote mu joxe waaye nag yow nag ci alal mu taxaa nag mbégum murid yëpp waaw sëñ Basiru mooy mbégum murid yi safinata bi kulli janna min daari fi li asal min fi li ci mbégte la nekk at lu ko stress yaa koy yëg barki sëñ Bamba ku doxul yaa koy yëg sëñ Muntaxa day dox ku tabb ci moom di dox ku bëgg di dox ko xam di dox ku wéy ndigal di dox ndax Muntaxa la day dox ak mbégte la ku ku tàkk la gaa xool mi doon Muntaxa xam li safinata lañ la wax bi kulli ganna min daara si minen yeesa bi ku tàbbi ci gi nu yeggal la gaal gi waxul àjjana daal gi tàmbali na ci àdduna mu dox soobul ci waxi si amoon taxaa di ko bëggee yàlla fi sëñ Cheikh Fall jëmb yàgg barki maam Seera Fall jaa ngeen jëf dégg nañu ci média yi réseaux sociaux ñoo ñoom ñoo ànd liggéey bi ba nu tàmbalee ba fi nu yëg si ànd ak waa croix rouge ak gendarmerie ak policier ak lépp waaye amuñu benn problème xanaa soxna si rek te jéllub Serigne Touba la xol bee sedd ca la nu doxe fee ba ñëw fi di fàttaliku nag Serigne Touba. سمد قد أوزد لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضان ردت لي فيك الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقلت لانفعالا لوجهك الكريم أوسي الفرجا للمؤمنين وتحقق رجاء مسليا مسلما على النبي بشير كل قرب وأجنبي ولياب للمسلمين فرحا يا من معها عن الأذى والترحى محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي تقبلا najaa yàlla al Mustafa ba'da salaam